den daan manipuler ñu ngi war a jàpp Sonko génn leen nit jóge ko ba Casamance ñëw taxaw benn police ñëwul jàpp Sonko mais mën ngeen a manipuler loolu manipulation bi foofu la isaan maa ngi nuyu mon ami mon frère Bousse Ketchup nit ku baax la Bousse manipulation bi fii la bàyyi sa débitir boobu ngir Lat Diop comme jaral na la ko yaa ñu fi Lat Diop ba suñ nopp yi bënn Lat Diop Lat Lat Diop tëf li nga ñu ba ñu tooy buuse léegi nag comme Lat Diop jàpp neen ko wan ñu sa mbëggeel ci moom waaye ñu ngi jàpp Lat Diop ngeen nga naan dëxi ni xar gi yàpp mbëpp tëf <laughs> li nga ñu ba ñu tooy finalement tu ne nous merde quoi léegi nag sa tour jot na pour nga wane lat ma nga doon yuuxu démb ak tey fu mu la toll léegi nag li ma lay digal mooy bul cof lat de parce que ba muy neex muy nekk ministre du sport demoon nga fi kaan sol sa drapeau fecc te mos nga buuse mos nga xam nga ne mos nga man moom mos naa man j'assume mos naa moo tax may xeer di parce dama mosoon démb waaye yow mos nga nag xarit <laughs> ñun ñaan ñëpp mos nga man maa ngi génn di xeex bët bu set mais xeexi nante laa xeex <laughs> parce que nekkuma fa mais wooteel mars ñu jàpp la tëj la no patriote yi daf ne axena ah, toon ak kaay foofu ak Ousmane Tounkara ñoo daan toog ak Mollah Morgun ne génn leen toog Amérique waaye man tamit su ma duru la buuse génnul ñu jàpp la tëj la génnal nga taal puna nga lakk mbedd yi man ma toogal la fii suñu la jàppee dinaa la taf ne free Boucher waaw fu nekk opposant dafa métti am fu mu nekk ne cinq yi mu war a opposé wu nii dina métti de